بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة والصلاة والسلام على عبده الناظر بعين الذات إلى عين الذات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في ملكوته أو ملكه سلفا ليوم المشهد ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة إخوة الإيمان والعقيدة في كل بقعة من بقاع الأرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلت إني دقلو ci seen rajo Safina FM 98 point 2 ñu leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa ci mbaaxam bu boole ñu baal di ko ñaan it li ñu koy jaamu mu nangu ko ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll di ko ñaanit bu ko nangoo mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall moo dellu siwaat ak yéen ci daara ji ci seen waxtaanu tasawuf ki nekk ci technique bi sunu mbokku mbopp sàmb si ànd koog sunu jarbaat di omar sàmb ngi leen di ñaanal yàlla tawfiq tabarakallah ñu ngi nuyu di ziara di ñaanal suñu directrice su bopp di soxna ñu maba ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysir mook mboolem ñu koy jàppale ci liggéey gi waaye di beral nuyoo ak ziyaara ak ñaan ak ndokkeel boroom kër gi di wëllëre di soppe di xarit waaye di mag mu baax di alxaaji Cerno Xamidu Ban ndokkeel ko ci ziyaaram bi weesu bokk koog dawaayir yi nga xam ni tabaarakallahu ci moom lanu aju ñu bokk tënku ci fraternité musulmane ñaanal ko yàlla yàlla may ko fan wu gudd may ko wir yàlla dolli ko leeru dënn barke xam-xam lépp lu mu yaakaar ci kilifaam yàlla defal ko ci lu kawe yéeneem ak njortam te mu muurloo ko moo njabootam tabaarakallahu di ñetti bés yu am solo nga xam ni la ca génn ci yiw ca génn ci xam-xam ca génn ci barke mën na yóbbu nit diiru dund kon ñu ñaan yàlla mu yóbbu nu fii ba déwén yàlla may nu déwén dàq ren te nu fekkee ko te tal ko tabaarakallah ci waxtaan wu mujj bi maa ngi yemoon ci kuy gëm gëmal yàlla kuy topp toppal boroom ndigal kuy jëf jëfal yiw kuy wax waxal dëgg ñeent yi mooy farata xam ni ku góor góorlu ba tënku ca la ca des bu ci sa yoon nekk ndax àdduna bi këllu jàmbur la li fi nekkit alalu jàmbur la waxtu wu ko neexee mu yamale ko fa te lu waay mën a dugg soo ko nangulul mu xëpp ca suuf lu waay mën a am na doon xam-xam na doon pouvoir na doon na doon lu mu mën a doon nit di ca barele bay bàkku soo ci boolewul borom kër gi mu xëpp ci suuf te nag laa yusalu amma yafaal wa hum yusaluun ku am affaire ak koo xam ni ñuy wax talaaqatul qudra kàttanam may na ko lu mu namm def ko lu mu mën doon lu mu namm rekk kàttanam may na ko mu def ko te bu weesoo kàttanam sañ-sañam may na ko sañ na def lu ko neex sañ na def lu neex ci waxtu wu ko neex ci barab bu ko neex ci ñu ko neex lu tax moo bind ku bind moom ku moom sañ waaw tax wa yafalu fi mulkihi ma yashaa taala al ilahu wa jalla al xakam فما إن يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بهذا احتكم nguur gi nguuram a nguur nguuram a moo ko moom ku nuy wooye buur kudul moom moom moo la nattu moo la nattu ndax la mu la jox doo ca jële lu dul tuutil sa bopp jëppi sa bopp nit ñi jëppi la ñëpp dellu xam ni ndekk buur kenn la قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مالك الملك ملك بوبو بوك لك تبارك الذي بيده الملك ده. <laughs> ملك بي moom la yor di ci nattu ay nit waaw ku nu wooye buur rekk xamal ni nattu ba dal na ci sa kaw ndax yan nañu la loo xam ni fa nga jëm ak moom mooy wane ni ndeka doo buur buur kenn rekk la mooy buuru buur yi moo tax Serigne Cheikh ñu ni ko lu tax buur du jub mu ni su jubee yàlla am wujj waaw sunnatullah yàlla bëgg-bëggam namma nammam mooy moom rekk mooy mët alkamalu lillahi waxdahu alkamalu almutlaq lillahi waxdahu moom rek ay mët ku moom rek di nga looloo ko neex tax tuutil mul ko yaay dénk nguur mayewu ko da koy dénkaane waaw nguur nag neex na neexaay boo xam ni ku mu ko dénk nga yaakaar ne yaa ko moom ba nga yaakaaree ni yaa moom keroog nag nga tàmbalee eh, eh, eh, gas sa kàmbu toroxte <laughs> ndax yàlla dafa fiir <laughs> li muawiyatu bnu abi sufiyaan waxoon ni yàlla lu mu yëkkati ba ñu seen ko ca kaw di ko yéem yàlla fakkal na la kàmb ga nga war a daanu sunnatullah parce que amul lenn walla kenn koo xam ni sag nekk Sagnek nek lu war la mom rek la war momrek rek la mëtam war waaw mom rek la xamam war mom rek la dundam war mom rek la katanam war kudul mom moom nek ak sa dund ak sa xam ak sa katan lu dagan la dañ la limité ko defee nek tuutil mulka yaay dénk nguur man tashaa waaw waaw ku la soob waaye wa tanziul mulka gis nga wa tanzi la wax waaw ku gàtt xel ba ñu dénk la nga defe ni yaa moom bu ñu koy nangu si nañ ko foqar ci lu tax mu ni wa tanziu waaw ah. ah, yaay foqar ci nguur ci kala ña sooboon ba nga dénk leen ko ku ca déborde rek waaw ah, nga wan ko limitam waaw ñëw foqar ci ko bàyyi ko jubbam keroog lay doog a xam ni ne ko moomul te fekk na weesu na fa mu war a xamee weesu na mu tax ida al imaanu daa fala amaana wala dunya liman lam yuxyi diinan ma ni kuy gëm gëmal yàlla ndax gëm moo di assurance di assurer jàmm bi وخني لأن الإيمان أو الاعتراف بهذا الوجود fa huwa aslu kulli sharafin lil nit du jot identitéem nit du xam boppam nit du téye valeuram di leen jariñoo mu nangu existence yàlla subhaanahu wa taala soo koy nangul rekk di jot sa identité di xam sa valeur koy nangul rek di ci jot waaye soo ko nanguwul rek yaa toroxal sa bopp ndax al iman ba tey huwa sabab fi kawni al insan عضوا مختارا للشركه association la walla boog ñu ni société la société boo xam ni bayna ilahin qaadir wa bayna abdin aajiz diggante buur bu mën lu ne ak jaam bu tële lu ne ku tële lu nekk nag li lay dimbali mooy nga fekk ki mën lu ne nga wéeru ci moom waaw ca biiru wéeru ba ngay mën ñu defe ni yow fekk na du yow danga sagal sa bopp bu doon yow dongo doo def lu sotti nga wéeru ci ki nga xam ni dara tawu ko société la waaw ah, ke cay bénéficier nag mooy doomu aadama waaw ah, daal capital bi yàllaa ko joxe hmm. ah, rasul maal yàllaa ko joxe ko defee nag ko su bàyyee nit ak boppam rekk nit du am fu mu jële capital waaye yàlla jël capital jox ko te lu cay bénéfice nit a koy jariñoo sharika la bayna bayna ilahin qaadir wa bayna abdin aajiz ko defee nag nit wéer boppam ci yàlla yataraqa wéree sa bopp ci moom rek ngi yëg kàttan bu lay dooleel te mu wóor la du yow mooma nga yëkkatiku waaw sa bénéfice di yokku te soo ko joxee boroom capital bi mu delloo la ko ni la pour yow la تبارك الله أحسن الخالقين sama góor gee ci مولانا سيد شيخ أحمد تيجان سي المكتوم مني وذلك أيضا ليفهم الإنسان معنى الوحدة الوجودية معنى الوحدة الوجودية التي من أجلها يقول السيد محمود الوراق من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة تخك بق تاكل دينك الدين وتل بنين بورني موي سبور واي بولني يالله يسبور bénéfice bi nga xam ni moo lay jariñ fii ci àddina nga koy liggéey ëllëg nag nga koy jariñoo waaw ëllëg nga koy jariñoo waaw tax imaamul Ghazali radiyallahu anhu wax ni al mawjudaat kulluha axawaat waaw baaduhunna li baad waaw Serigne Cheikh ni ko naam إنما الموجودات أخوات فأصلحوا بين هؤلاء الإخوان أيها السادة حتى بين الجنة والنار إمام الغزالي رضي الله عنه يعني الموجودات كلها أخوات بعضهن لبعض يلا عمل تدندقي nee na ay mbokk lanu ay mbokk lanu wax na dëgg waaw li ñuy wuute wuute li ñuy bare bare ñoo bokk cosaan ñoo bokk cosaan suñ Cheikh ni ko kon nag comme ñoo bokk war nañoo defare seen diggante ba ñu juboo ndax bu nu juboo doomu aadama cay bénéficié wu waaw ni ko man yegg naa ci wax sax ni nañu egg ci seexale ajjana ak safara <laughs> allahu akbar te loolu eh, mën na nekk bi waasitatil iman nit mën na ko def fan la nit di sukkandiku ban capital lay am pour def ko mooy al iman muy gëm yàlla gëm yàlla gëm googu ay darajaat la هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين pour ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم سيدنا الشيخ نيولي ولتنضم جنود الى جنود مثلها في سبيل الاصلاح والعمل ولله جنود السماوات والارض كن اخوات imaan escalier la fa nga am na ku la weesu di wéy am na ku yegg ca sommet moom xam nga ki wax ni kulluhum yacbuduuka min xawfi naarin wa yarawna najaata xadan jadila aw bi an yaskunu ljinaana fa yoxbu بقصور ويشرب سلسبيلا مني ليس لي بالجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا جيجين له جيجينك وخ رابعة العدوية أمغني كي شيخ لنا سفراك أجنا يونم pour mom yalla rek mom mo exister ku bind ajjana du yàlla ah kon neex-neex ba ca aljanna yàllaa ko dàq ndax moo ko fa def ku bind safara du yàlla kon metti metti ba ci safara yàllaa ko gën a metti safara du lakk يالله لك يا سفر الجنة دو ترل يالله ترل يا الجنة إذا الإيمان ضاع فلا أمانة جمرك لنيت من السكن ديكو إسكالي مارش بار مارش بيجي تشبوب النيفو تموي لرابعة واحد te sëñ Cheikh wax ni nanu yegg ci seexale ajjana ak safara moom rabia mu ni yàlla gaa yi ngër ngëri di bàggante jàkk yi fajar ak timis suba ak ngoon naafile yaag njàngum alquran jaag jaamu yaag lépp yaabudu ko min xaw fi naarin ragal sa safara moo tax wa na najaata xadan jadila waaw ku ci ne jàpp nga ni cër piir mooy mucc ci safara mucc ci safara leen tax di jaamu walla dëkk aljanna ci ay château di naan ay cocktail de fruits مني ليس لي بالجنان والنار حظ مني من رابعة أجناك سفر سما يونك نيوم أنا لا أبتغي بحبي بديلا خمناني دال يلا في نك تجمكو سجل سبوبلا جمكو سطرال سبوبلا جمكو سجيل سبوبلا جمكو غارانتي سبوبلا جخنا سما بوبو يلا moom laa soxla munuma ko soxla nag di soxla leneen munuma ko ragal di ragal leneen sopp yàlla ba mu jeex di sopp leneen mu ni munuma ko ragal yàlla ba mu jeex di ragal leneen munuma ko kon soxlawuma aljanna ragaluma safara yàlla laa soxla إذا الإيمان ضاع فلا أمانة لا إله إلا الله yent yàlla isa alayhi salaam moom moo ci génn waaw waaw moom nee na wa malakutullahi fiikum waaw wa malakutullahi fiikum sëriñ cheikh ni yanqulu ظواهر الإيمان إلى بواطنه <laughs> نينا ينتي الله عيسى عليه السلام نينا نقل ظواهر الإيمان إلى بواطنه جهتك وملكوت الله فيكم شتتتت kenn musul gis loolu tax bu ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bos ki yëgg ci dimension bi boo ca yeggul bul ko weddi ni moom dafa jël biti bi delloo ko ci biir loolu la yonent yàlla isa alayhi salaam wax waaw waaw li fi nekk yëpp nga di ko gis benn qudra benn kàttan moo ko def muy kàttan yàlla waaw waaw mu jëlaat lépp delloo yàlla subhaanahu wa taala noppalu su ko defee nag nit dafa néew doole moo tax ma tàmbali ci kuy gëm-gëmal yàlla nit dafa néew doole lu ko jaaxal yomb lu ko écrasé yomb na delu ci sharika ba rek sharika bo xamni bi mushtaraka bayna ilahin qadir wa bayna abdin ajiz na dem associé ji ak buur bi nga xamni ni na lépp wéeru ca moom moo tax la sayid muhammad mutawalli shaarawi radiallahu anhu yal na ko yàlla fay ci xeetu yonent bi ci xam-xamam bu rafet mu daan wax naan al rasid al rasid al imaniy la budda min ñuy sàmb si ubbi compte ca banque ba weer wu ne mu cay verse xaalis ngir mu duun ngir mu sakkan mu ni bu mu fàttee moom samba de bu mu fàttee ah na ubbi kontu iman kontu gëm yàlla boo xam ni da koy renforcer koy dolli saa su ne <laughs> gis nga compte bi ci banque bi mën na jeex te du tee ngay dund waaye compte iman bi nag bu jeexee rek mooy sa toroxte ni ko lu tax mu ni parce que achaddu achaddu junudillah dañu laaj Seydina Aliyin ni ko soldaa yi yàlla am di leen xiirtal ci kaw ci kaw ci kaw ñaar di nattu ngëmu nit wala nit débordé mu cay fudd ndigam ñu laaj Seydina Ali ne ko yooyu soldat yan lañu mu ni al jibaalu rawasi summa al hadid summa nar summa al ma summa sahab summa riyah summa ibn adam summa sukur summa nawm muni wa ashadduha alham soldat yooyu ñu ñu ko al jibaalul rawaasi mooy montagne yi nga xam ni ñoo tëye suuf wal jibaala awtaadan wal jibaala awtaadan ki dem ba ca désert ba mu di fa samp xaymaam wala berkeleem nu muy def wut ay bant yu dëgër daaj ko ba mu ba mu màtt ci suuf si waaw mu yëkkati xayma ba samp bant ca digg ba waaw cat lu ci ne mu jël takk ci buum yeew ka ci bant ba mu samp ba mu dëgër lu ngelaw ngelaw bare bare bare doole bàyyi fa xayma ba waaw yaa ngi noonu wal jibaale awtaadan yàllaa leen dénk suuf si ni leen téyal leen ma ko ñu waaye gis nga yàlla de ku mu jox kàttan dooleel keneen ku la ëpp kàttan ci sawet wet allah ñu ni montagne yooya la bare bare kàttan la ñuy téye suuf am na soldaa boo xam ni fu mu leen fekk rek sàkkal leen pexe te moo di alxadiid weñ waaw ngay ñëw fekk fii montagne diwoon nga ñëw jaar fi fekk ñu dagg ko def fa goudron bu tàlli nga di ca daw ay xel waaw loolu defe naa ñiy jaar ci autoroute péage bi jëm ila tuubaak tabarakallahu wala ila Thiès bok wala feneen xam nañu ko ndax léeg nga tiim ñaari montagne seq la mu wóor la ni dañee dagg ca digg ba alxadid weñ moo def alxadid waaw mu ni fiihi ba'sun shadid wa manafi linnas weñ waaw na lor mën na Hmm? waaw jëriñ na ñiy jaar ci autoroute boobu di dem moom weñ waaye bés bu set mu lor ay bakkan yu dul jeex waaw ñu ni soldaa boobu ñuy wax alxadiid li muy bare bare doole yàlla teg na ca wetam ku ko mën ñu ni Seydina Ali mooy kan mu ni annaar muy safara safara moo koy lekk ba rongé ko waaw di ko lekk di ko lekk ba mu jeex fënax waaye bu safara ne maa mën weñ ndox fekk fa safara ni ko yow maa la mën bu ko ci sottee mu fay ñu ni ndox attention yow it am na ku la mën ñu ni ko mooy kan mu ni as saxaab waaw ñuy niir yi waaw niir yi waaw ñooy mbuus yi nga xam ni ñoo la ëmb tëye la waaw taaw la waaw kon niir yi bare nañu doole de waaw saxaabun markuum saxaabun markuum xiin ba ñuul kukk ndox la de lu tax wàccul dañ koo téye ñu ne niir yi daf leen ndànk am na soldat bu leen mën waaw ñu ni ko mooy ban mu ne ar riyaax muy ngelaw yi waaw wa na riyaax lawaaqiha ngay fekk jekki mu xiin dakar ba nga ni day taw nga jekki-jekki gis ngelaw li di ko puus di ko puus di dem ak mom di wéy yalla ko jox ndigal ni kon ngelaw mom bare na dole de ni ni waye nak ibnu adam yaglib riyah wa ngelaway daaneel safara da daaneel garab Daniel batima daaneel lunet doomu aadama ak ñaari tànkam ak boo ko pesé du mot cinquante kilo mu xuus ca biir ngelaw la di doxi soxlaam ñu ko nit a leen ëpp doole waaye bu mu bàkku moom nit na wéeru ci yàlla rek ni am na ku ko jege waaw te xajul ci moom ni ko mooy kan mu ni bu mu màndi de dafa bàyyi luy muur xelam de buy jël sàngara xam ni jaxasoon ak mbër mu ko mën <laughs> mbër mu ko mën eh, ngay fekk ku jël ñoll ba jaaxaan ca kaw sën ba defe ni ma nga ca kaw lalam naaj bi tàng lakk ko mu nelaw ba màndite ba rees mu tourné xool ni acam waaw tax laa ashrabu maa yashrabu aqli waaw xakim ba day def bu nu ko servire sàngara rek mu puus ko ni ko ñëpp di naan te doon naan mu ne damay bañ naan lu ma naan comme bu ma ko naanee mu naan ma naa mucc rek kaas bi daal moom bu ma ko naanee mu naan ma wax na dëgg ki la xañ sa xel kay naan na la comme boo ko naanee mu naan la waaye bu sëñ bi yaa naan lu sa bopp wàcc ko fa ni waaye ka man di saaga nit ñi di mbel mbel lu ne mu dugg ci nañ ko muñal buy gëmmentu rek di dammaloo sam nit ñi am jàmm nelaw ak mën foofu moom man di te ah, ñu ni xanaa kon nelaw moom moo ëpp doole ñëpp ñu ni ko déedéet alham alham waaw ah, ah, mooy naqar walla stress nit dana gëmmintu ba bëtam di xasan gëmmintu ba làmmiñam damm munul wax waaye bët yi du nelaw xol bi du nelaw waaw walla léeg-léeg bu mosee tuuti tëb ni waaw ah, lu tax newatu fa lu tax idal imaanu daa fala amaana waaw ah. li ko waroon téye ba mu résister lépp moom la wàcc te moo di gëm الإيمان نجم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم آه. لا حول ولا قوة إلا بالله بودي ساسو نيغا رانفورسي سي گم تي يالا سي وولو تي يالا تولي الله جنود السماوات والأرض soldaay yi nga xam ni ki ca gën a tuuti xejul ci yow yàllaa leen moom moo leen yilif soo bëggee mucc nooy def fekkal ci ki la bind bind leen kàttanam not lépp nga wéeru ci moom waaw nga wéeru ci moom ويرو تي موم ريك نوبلو تخ موم شيخ موني واي واي واي شيء اولى بالانسان من هذا الهدف واي شيء واي شيء اولى بالانسان من هذا الهدف واي تجربه انفع له من هذه التجربه شيء gis waaw lu mu def lu dul teg bëtam foofa mu nekk hadafam di objectifam xamul lu ko noppal waaw lu mu def lu dul tajriba boobu da nga koy jéem dangay ngay waaw ngay jéem yéeg escalier bi waaw metti na sore na jafeñ na waaye du nga koy jéem waaw jéem bi nag ay risque a ngi ci waaye ku ko jéem ba ba ba risque ya benn ci risk yi dal la yàlla tàccu la ca kaw yàlla tàccu la ca kaw waaw ba ca gën a sedd mooy dee waaw al ko boo dee ca yoon ba yonent bi gàttandu la yàlla suñu boroom ñëw subhaanahu wa sagal la dee moo ca gën a la hawla wala quwata illa billah ah labbayka يا عالم سري ونجواي لبيك لبيك يا قصدي ومعناي أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناجيت إياك أم ناجيت إياي حبي حبي لمولاي أضناني وأسقمني فكيف أشكو إلى مولاي مولاي يا ويح روحي من روحي ويا أثفي علي مني فإني أصل بلوايا ريسك لا مي كدول كودول دي ريسك دو ام دارا اه، موتاخ نيت يالا يي ام ميريت اه، سين بوس بوكول اك بو يوننتي yonent yi leen gën waaye ci coobare yàlla waaw bu dee yonent maasum lay doon te it euh, euh, wax bi ñu koy jox dañu koy décortiquer dañu ko koy décortiquer waaw bu dee nitu yàlla bi nag du maasuum anam yenent yàllaa koy protéger waaw nawaamis yi ko yu booleel duñu ko bàyyi benn yoon mu tarxiis waaw ah, munta munta mooy yàlla munta def lu tuuti ñoo ko gérer topp ko te it bu bu bu bu révélation bi dikkee duñu ko codé rek jox ko ko mais dañ koy décortiquer lu ne dañ koy décoder jox ko ko di nitu yàlla bi nag amul boobu isma amul garanti dañ ko bàyyeeg mbër yu bare a seytaanu wa dunia wa nafsu wal hawa addina seytaane bakkan bànneex lañ leen bàyyee bi ci des mooy ishaaraat yi muy jot moom nitu yàlla bi nga xam ni xaybiya la waaw kumpa la kumpa ko codé moom mooy def yitte moom nitu yàlla bi pour décoder ko comprendre message ba ci biir moom nitu yàlla moo koy def tax muxaamara la muxaamara pire la waaw aventure dëgg la waaw yegg ci risque ya nga cay jël dee moo gën a tuuti ci la nga cay xaar te mooy dem ba sa gëm yàlla sa wóolu yàlla dara dootul exister ci yow lu dul yàlla yàlla rekk mooy exister pour yow mu tax nag soo ci yeggee nattu gënu ko rëy ndax da ngay dund ak ñoo xam ni bokkuloog ñoom dundin bokkuloog ñoom dundin ah xasanaatul abraar sayiaatul muqarrabin <laughs> kuy dund ak ñoo xam ni la alquran di tudde yiw góorgóorlu nañ ci ñoom góor góorgóorlu nañ ci ba booy wut ku yiwee boo leen rombee leen yow ngay dund ak ñoom te la nga leen jàppe rus nga ko wax chet nga xam ni li yàlla santana def nañu ko lépp li yàlla tere lépp mucc nañ ci abraar te yow rus nga tur wa nga ni rek a pour nga woowee leen ko rus nga leen ko <laughs> la ilaha illallah. nit ëpp na nit waaw sëñ Cheikh ko waxoon ca kër Jëmb Njaay nit ëpp na nit moo tax koo àndal am na ku tax am na lu tax mawlana qutbul aarifin abul abbaasi ahmadu tijaani alsharif alfatimi radiallahu anhu fa am benn njabootam buy góor góorlu alluwaam di góorgóorlu ci tuur ñaqam di jariñu di góorgóorlu ci digganteem ak yàlla ba yàlla may ko sutura ndeko sultaan bi buur bi moom rekk lañu teg bët nit ñi dem di ko kalaameek gouverneur ba ndax fiire ko rekk mu xëy rekk gouverneur jàppalu ko ñoo wax ka mawlaana qutbul aarifin abul abbaasi ahmadu tijaani radiallahu anhu mu daal di solu rek jël sàkkoosam bi mu daan yël def ci kaamilam rek waxu wuti gouverneur yegg si ko kii sama njaboot la da nga dal ci kawam gouverneur ni ko waaw euh, euh, man lu ma jullit wax ma gëm ko te jullit ñi ci quartier bi ñoo ko ñoo ma ñoo ko kalaameek man ñoo ni ma nangam ak nangam ak nangam mawlana sayid cheikh ahmadu tijaani radiallahu an ubbi saag bi génnee ci kaamil alquran teg ci kaw taabal bi wax gouverneur ni ko tegal sa loxo ci kamil bi nga watal mané quartier bi julit am na fi laa ilaha illa allah watal ma rek ni quartier bi ba mu jeex ben julit am na fi te quartier ba serigne Cheikh nee fa la borom xam-xam yi dëkk mufti ya fa la qudat ya dëkk kat yi fa la iliman ya dëkk fa la muqaddam ya dëkk ñëpp ñu nga ca quartier ba di quartier borom yi xam-xam Seydina Cheikh ni ko waatal ma rek ni quartier bi jullit am na fi ah. ah am na ñoo xam ni seen dund nattu la ku yegg ci niveau boobu di dund ak ñenn ñi sa dund boo fi toogaatee am na mission boo bëgg a yeggale waaye say nawle newatunu fi ah say nawle nekkatunu fi am na foo xam ni ku fa yegg rek tànn dem tànn dem dem dem dem ca yàlla foofu rek nga xaj waaw waaw ka ci jiitu mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam وعام أهدئ محتاذا على جلل دعاه في سفر مولاه للكرم فاختار مولاه إذ ما الله خيره seetal فاختار مولاه خجت فيه كم في نكلتي dem na ci xam-xam dem na ci expérience dem na ci yëkkatiku ruux ba xajatu fi iman ida al imanu daa fala amana tax nga gis leen ñoom risque yooyu comme naan ndox la pour ñoom ñi mu dal ñëpp dañu leen a sacrifier dañu lañuy xëy rek assassiné leen mu tax sëriñ Babacar si radiallahu anhu wax ko sëriñ Cheikh ñu ko seen maam Cheikh Alxaaji malik si radiallahu anhu chance am mooy dëkk gi mu dëkk ci réewam dëkk ak ay bokkam nekk fekki bokkam ni ko gis nga bu doon dund ca jamono yi buur ye buur yu njëkk ya kon ni ñu def ñoom imam Shafii assassiné leen noonu la ñuy def Maodo ndax moom yeggoon na ci foo xam ni ah, da ngay xam ni kii daf fiy dund waaye dundam gi sax nattu la pour moom ah dem ba feug buntu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ala ya rasul allah kulli wa jumlati fa inni fi hadha hada damani garib وعني حرارات الفؤاد لتنطفي وقد زاد من ضيق الزمان لهيب فلولا تمني الموت من فيك منعه تمنيته إني إليه أتوب fii la Maodo yeggoon xëy rek fëgg buntu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ko nag jaaxle na te man yaay sama lépp wat na ci yàlla ni ku jàng dund Maodo di nga ko yërëm waaw yonent bi jaaxle naa te yaay sama lépp waaw ñu ko xarib la xarib jamono bii may dund ci réew mii may dund aw ma fi àndandoo aw ma fi ànd garib am na keneen ku ko doon wa garibu jinsin la siyaadata baadahu inna siyaadata tegtabihi zamila waaw muy dem yóbbaale ko garib Maodo ni yenent bi garib laa amatuma fi àndandoo amatuma fi àndandoo wax na ko nu daamaana bu duuru nayiraatun yuqirru laayna xidnun min tanini waaw ah, ah. waaw ni sama maas ñama miin ci ànd miin leen ci wéttal ku ci na weeru badar nga waaw ah, ku ci na weeru badar nga waaw koo ci làmb rek mu mat la sëkk wéttal waaye ñii nag آه، آه، آه، ولا أنيس سوى شدو الحمام على الغصون ني ما في دوندال نك من مالك اي بتاخ لا ني رك يي ساب سي كاو غرابي بانقاس غرابي ساب رك داني لا تانكال وايي موتو ني لا ويتل لا اله الا الله نا تخ الا يا بني هذا السلام عليكم سلام وداع لا سلام قدوم لقد كنت أرجو قبل ذلك رفقة وقد عن لي يأث بنيل مرومي لا إله إلا الله keroog mu waxee cheikhul xalifa radiallahu anhu ni ko ñaanal leen ma ba ma mottali sama taalif bi mottali sama ñaari sama zawiya yi waaw bu ma ko defee rek dem bàyyi leen ak seen àdduna waaw dem ca ñëmamat wéttal waaw donc ba mu ñëwee nag di di di ko rendre si compte moom cheikhul xalifa radiallahu anhu Maodo jox ko loxo ni ko loxo bii nag du loxo kuy kuy doog a agsi di nuyoo waaye loxo kuy tàggatoo di dem la waaw dama doon dund ci seen biir di wut wéttal dund naa ba maa ngi dem awma ci seen biir wéttal maa ngi dem ماغي دم والله لتزول عن غاياته الاوهام اذا الايمان ضاع فلا امانه كوي غم غمل اليلا نسبت نك تي مارشي با waaw lu la ci dal baax na la bayka yaa aaliman sirri wa najwaaya moo daloon Mansour Xallaaj waaw ko tolloolul niveau bu ngeen déggante ci wax waaw hmm? waaw mu doon dundal ci jamono ba nu àtte ko ci sharia yi dañu koy rey tur wa mu leen xamal dus na ko wax xasanaatul abraar sayiaatul muqarrabin waay yaa rubba jawhari ilmin law abu xubbihi mu tax nit ko jis mu ni tekk te fukki at juróomi at ñaar fukki at fanweeri at yaa ngi ko di xaar mu wax mbaa mu jëf lu ko tarxiis loo te jusoko ko demal doxi sa soxla balaa sa tool di booy xam na loo xamul xam na loo xam bu ko waxoo àdduna tukki tekkam googa bàyyi koog moom naa ko bal ba mu wax yaa rubba jawhari ilmin لو abuuxu bihi لقيل لي ذاك ولا أنت بولا تي نيخ آه، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولا يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي ذاك ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا آه. زين العابدين رضي الله عنهم وكوخون آه. مني خمنا لوير loo xam ni boo ko dendaleeg xam-xamu ñi may dundal ci pénc mi sama xam-xam di wurus seen bos di përëm waaye bu ma génnee sama xam-xam wurus ñu rey ma ndax nëbb seen përëm bëgguñu seen përëm génn ñu xam ni seen xam-xam ndaka lépp përëm la ni moo tax ma làq sama xam-xamu wurus su ma koy génnee ñu may rey te la laye mooy dañu maanaan yéefar nga ndax sa xam-xam bii amul amul amul teguwaay ñay julli ca jàkk ja ñoo may rey ni ma yéefar nga waaw أبو هريرة رضي الله عنه وخنك حفظت من رسول الله وعاءين من العلم أما أحدهما فقد بثثت وأما الآخر فلو بثثت به لقطع مني هذا الحلقوم آه، نيون السكري أمول باطن أمول من إني الأموكرك آه، نيون ينتبي وخن اللب دسلول داره mu ni abu hurayrata nag lu mu wax lan la nee na ñaari ndab laa daan taataane xam-xam ci yonent bi ndax ñaari xam-xam yi benn bokku ci sa moroom su ma daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari ndab lay indi bu ci nekk di taataan te bu ne xam-xam ba ngay taataan bokkul ak sa moroom mu ni benn bi taataan naa ko ba mu fees waaye sotti naa ko ba ñëpp jëriñoo ko nëbbuma ci dara mu ni beneen bi nag bu bu ci dara bu ci dara toqoon génn senn génn ñu tër ma ni ma dëqit rendi ma ni ma da nga sosal yonent bi yonent bi waxul lii xalaaj hmm? wax la mu wax te ci niveau am la ko waxe nitu sharia yi ñuy jàngale téere yaag di jiite jàkka ya woo ko àtte ko ni ko yéefër nga dañu la war a rey sharia moo la reylu ñu di ko yóbbu ca ëkk ga ëkk ga ñu ko doon daggate muy muuñ muy muuñ muy muuñ mu ah, li ma bëggoon am naa ko moom xallaaj li ma bëggoon am naa ko mooy yàlla wuyu ma rekk laa bëggoon <laughs> ndax moom rekk a ma xam la ilaha illallah mu ni kudul yàlla xamoo ma kon dëkk ñu la xamul nga dem ca kala xam noppalu noppal leen ah, ndax dama leen gêner ها dama leen a déranger waaw ma dem ca kama xam ndax ma féex ñoom it ñu féex waaw day am de waaw waaw wallahi wal qur'an al azim day am ida kanat an nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al ajsam waaw waaw ruuxay lëjël lëjël ña mu nekkal rek doo leen def doo leen wax balee nag lépp waaye rekk bugguñu laa dégg bugguñu laa gis lu ko def xam loo ci xam lu ko def sa yoon bu mu ci nekk kon la bayka واني ني دي لا ويسي يا ها ادعوك بل انت تدعوني اليك فهل ناجيت اياك ام ناجيت اياي مالا دان و تاي نك بي ياو لا ولا من ma daan def fu ma toll di la woo waaw ah, nag yaa ma woo soxla yàlla yàlla soxla laa ko gën a wóor <laughs> di ñaan yàlla audience ah di ko ñaan audience foo toll dama bëgg gisee ak dama bëgg gisee ak yow bàyyil yàlla nam mu gisee ak moo ko dàq hmm? keroog ba yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëddee ca kaw lalam keroog xalaatul woon ni yàlla da koy invité jël si ko ay <laughs> eh, yàlla moom bu la soxlaa rek tabaarkalla tabaarkalla mu yomb gise bi yomb tax mu ni maa la daan woo tey nag yow yàlla yaa may woo <laughs> hmm? maa daan jéyegu yow ci lëndëmu guddi daan déeyoogu yëngu ci lëndëmu guddi tey yaa may woo pour déeyoog man <laughs> cher të të të të ulaayika al qawm ah laa afhamu kalaamahum li annahum hum wa ana ana gaañaa ngoog de waaw waaw seen wax waaw bëggee jàmm bul firi waaw ndax du yàgg ba ngay ñoom du yàgg ba nu yaw ah mu ni waaye daal rafet naa njort ndax xubbi li mawlaaya adnaani wa asqamani Mansour Xallaaj waaw tuuti tuuti ba boo ko pesé du mat soixante te tuutiwaayam booba lépp cofeelu yàlla rekk moo lekk jëmmam sopp yàlla sopp yàlla sopp yàlla ba mënatula am yaram mu ni sama tuutiwaay bii sama feebar bii ma dal cofee ma ko teg cofeelu yàlla moo ma moo lekk sama jëmm moo ma feebar moo may faj waaw waaw comme li ma dal moo ma ko teg naka laa ko koy jàmbate ah fa kay fa kay fa mawlaaya mawlaaya comme li ma dal yàlla ma ko teg te bugguma mu teggi ko naka laa ko koy tawate tey damay kontaan rek ndax tey maa ngay dem waaw maa ngi bàyyi ñiig seen àddina bi comme dama leen a xatal dama leen a gêné waaw waaw dégguñu ma maa ngay dem ca këm a dégg waaw foofa laa xaj ku defee ma féex ñoom ñu féex yaa waay xaruux yi waaw mu ni waaye nag ñoom ñi ma def lii bu leen kenn sikk li ma dal maa ko teg sama bopp <laughs> fa inni aslu bal waaye li ma dal maa ko teg sama bopp maa choisir lii man maa def li ñuy wax muxaamara al muxaamaratu fi mutalaati al xuyub maa def aventure waaw pour découvrir la ca kaw kon nag bu xaru dee am man maa xaru waaw xoolal boobu niveau mu ni bu leen kenn yedd al iman waaw moo tax la a sayid Jean Lacroix wax ni أصبحت الفضيحة اليوم تسود العالم تسود العالم الإنسانية أصبحت تسود العالم الإنساني ومن واجبنا إذا أن نتجاهل سلطتها ونعمل للقضاء عليها احتفاظا بشخصيتنا والوسيلة الأولى إلى ذلك هي الاعتراف بوجود الله فإن الله فإن الله حقيقة كائنة تتصاغر دونها الحقائق كلها لول لا كروا سي شيخ فان الله حقيقه كائنه تتصاغر دونها الحقائق كلها فان لم يكن الله فكيف يكون العالم mu ni kon فالاعتراف بوجوده itiraaf idan يفيد التغلب على عوامل هذه الفضيحة جانينا أصبحت الفضيحة اليوم تسود العالم الإنساني من نيوتيف ñaawteef yoo xam ne jukk yu suufe moo ko waral mu ni juddu na de mu ni ñu ngi naan du dem du dem mu ni waaye dem na bay raam da ñu naan du dem ñu dem mu ni taxaw na de ñu naan du dem léegi mi ngi dox soxlaam de ñu naan du dem mu ni léegi nag faf tasaaroo na yaatu na mu ni léegi boo dee xool ñaawteef mooy régner waaw waaw ah mooy wëlbati dundu nit ñi ah boo xam ne ay bandee ko yilif aalam boo xam ne ay bandee yilif def ñaaw téef ba ñépp jàpp nañu ni léegi ñaaw mooy mbaax mu ni ba tax na ñun ñëpp perdre nañu suñu identité suñu identité waaw xaqiq al xaqiqiya suñu vraie identité ku yàlla indi ci kaw suuf pour nga nekk représentant wu yàlla nga dem ba bàyyi ma yi tale na perdre nga sa identité ñi ci dess di fippo ko di gorlo ci dess waye amuñu katan buñu buñu dindé nu dindee ñaawte boobu bu ko xexé mu kon jotna jotna ñu protéger sunu bop waaw pour sam sam suñu identité pour sunu ñongal suñu personnalité mu ni ndimbal la nak ndimbal la lenn rak la te modi di al i'tiraf bi wujudillah nangul yalla limu don نقول كلمة دون يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام وخلفه لغيره بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال نكون نقول يلا ها ها هو الخلاق والعلام mu ni bu ñu ko nangulee li mu doon rekk sobe suñu bopp waaw waaw Cheikh waaw parce que yàlla mooy xaqiqa mooy réalité bi nga xam ni réalité boo ko dendaleel mu fay <laughs> waaw waaw waaw waaw yàlla mooy alxaqiqa waaw la ñu sama sëriñu bopp ba waxoon ca Tiwaawan waaw Mawlaaya Sayid Cheikh Mouhamadul Mansour si bu Sayid Cheikh Ahmed Tijane si al maktum radiallahu anhu waaw waaw mu ni alzamaan walmakaan يتغيران ويتبدلان وينصرفان كما تتغير وتتبدل وتنصرف الفصول الأربعة من ولكن الله هو الحقيقة العالية السامية التي لا تسيطر ولا تستولي عليها التغيرات الزمانية والمكانية آه. تبارك الله تبارك الله كروك بتشوغو كروك سيدي الشيخ دفك دفك دفك نوكيل فيليسيتكو تي بات تي تي تي تي بارك الله عبارات يم واخ دومو سخنا غور غورلو بابا لمو دون دلو موي دلو يالا وحدانيام من الزمان والمكان muy jamono ak espace bu mu mën a doon lu xew ci jamono barab bu mu xewee lu mu mën a doon day soppeeku ah day jóge ci rëy jëm ci tuuti day jóge ci tuuti jeex day soppeeku ni alfusulul arbaa ah, ni saison yi di di di defee eh, eh, eh, soppeeku nawet noor xamul nu ngeen koy waxe ci wolof sax ñu ñëpp dañuy soppeeku wan nañu gannaaw nawet bi ah wan nañu gannaaw nawet ah muni ni waaye yàlla nag moo di réalité bi nga xam ni fi la koy jamono fekk fi la koy bàyyi fi la ko espace fekk fi la koy bàyyi dara du jeexital ci yàlla Hah? tax moom si cheikh mu fa inna allah xaqiqatun kaina loo dendaleeg yàlla rek mu tuuti moo ba ci alquran Wah waaw boo gisee yàlla dunia laibun wa lahu waaw di ŋàññi di dundu ŋàññul dund en tant que dund adduna déedéet ah, adduna yàllaa ko fi bind indi ko te yàlla lu mu bind am nga solo moo tax dégg baax dafa tolloog yàlla ba muy wax booba boppam la doon wax di won nit ni ko loo ma dendaleel loola tuuti loma ma rek loola tuuti loola tuuti ay caaxaan lay doon ka àdduna li muy am am solo boo ko dendaleeg yàlla àdduna tuuti moo tax fii nga koy dégg fa inna allaha xaqiqatun kaa'ina tatasaagaru duunaha alxaqaa'iqu kulluha loo dendaleeg yàlla mu tuuti ah mu ni kon fa in lam yakun illah tekki jaaxaan ci kaw lalam lekk ceebu jënam naan boisson jaaxaan di ray biiram di géex naan yàlla amul yàlla amul te yow nga am yow nga am loolu moom fa la ndof Hmm. yàlla amul te yow nga am fa la ndof yam <laughs> yow ñu bind min nutfatin hmm. ñu bind min maa in ndox mu mu taq tilim bu la laalee nga raxas waaw ñu ngi lay delloo ci nga fënëx ba sax yi lekk la nga fënëx fa nga jëm sax yi lay mujje nga bëgg daq nekku yàlla ah nga ko nangu waaw ndax ndax suturaal sa bopp waaw sutural sa bop ci ndox mu doye di nañu la bind wa bo nangulé yàlla rek mu don suturé ci yow ha wa bo ko lanké rek mu don gatché ci yow wa fal yanzur al insan mimma khuliq xuliqa min maa in daafiq yaxruju min bayni sulbi wa taraib innahu ala يوم la السرائر فما له من قوة ولا ناصر waaw hmm? ah, min nutfatin hmm? nangul yàlla ndax nga sagal sa bopp ci loolu ñu la bind nangul yàlla ndax nga sagal sa bopp bu la sax yi jubee hmm? sax yoo daan romb di leen nëppaaje tey yaa ngi ci biir bàmmeel ñoo lay añee te ay sayyidul kainat yaay sangu nek tef nangul yalla moy sutural sa bop muni kon kon tef bobu nga xamni mingi mi tas aduna bi li ko Pur defé defee pour dindi ko moy nangul yalla limu dimel. doon ah, te wëru ci mom sakku ci mom dimbal nangul yàlla waaw tax nitu yàlla yi yegg ci nangul ko ba bu nu koy jaamu dañuy xam ni jaamu ko sagal seen bopp la waaw suturaal seen bopp la saxal seen dignité la ñu def ko pare ca waaw duñ ca topp soxla ajjana duñ ca ragal safara motax serigne cheikh ni wa yustahdaf bima qalahu salaf muni ma as'ada alladhina yuti'una bila ay gharad in lam yakun gharad al itaa muni wa hadha al fadlu لا يعود إلى إرادتهم ولكن إلى ذلك النور الذي يهدي به الله من يشاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا إله إلا الله واتنا تي يلني سما غورغي خاوما لا كين مسل ديك لولو hmm dem ci bus looy defal yàlla nangul ka li te xamni nangul ko moy sagal sa bop nangul ko moy saxal sa dignité way do ci wékk benn soxla hmm? Hmm. ni nga gor góorlu nak ba yegg fofu ñomit nañu dam sen ciir buñu ko dello ci sen jambar waaye nañu ko delloo ci coobare yàlla waaw ko delloo ci cosaan la leer googu nga xam ni moom la leen yàlla binde te ku ci yàlla namm ku ci yàlla namm doo tarxiis leer gaa di la niital ba doo fakkastalu ah, leer googa nga xam ni moo leen di ommat jëme leen ci yàlla seen boroom ba dootuñu gestu dootuñu xool lu dul yoon wa ñu tegu jëm ca yàlla seen boroom hmm? waaw te moo di inna alladina qaalu rabbuna allah summa staqaamu ñu nangul yàlla li mu doon te muy dëgg ci ñoom nag su staqaamu <laughs> lañu ñu seq ak yàlla ñi teg ko ci teguwaay ba waxul rekk euh, yi waa fiq yi di wax de waaw moo tax Mawlaana Cheikh Alxaaji Malik Si radiallahu anhu kenn xamul lu doon xëy na rekk wax ni bu sañoon bëgg-bëggam mooy xale bi nga gàbb ci loxoom ñu indi ko ci daaraam pour ñu jàngal ko balaa ñu koy jàngal fiq jàngal ko tawxiid jàngal ko tasawuf door ko jàngal fiq jàngal ko tawxiid yàlla wéetal yàlla hmm? nanguloo ko li yàlla doon te yow mi mag lay jafe ci yow ñu la koy jàngal ngay werante eh bien alors euh, euh, parce que université ba yàq na la parce que euh, idéologie ya nga jaar yëpp yàq nañu la eh, pourquoi nangam man gëw ma lii ah, jox ma preuve lu ne waaye moom xale bi feuille vierge la waaw waaw amagul kàttanu mënal boppam te lu jaamtale yàlla la fay wuutu moo tax boo ko koy jàngal yàlla koy dimbali looloo waral bëcc bërki démb rek ci daara yi alxaaji Cerno Hamidou Ban bi xale bu am sept ans et demi mokkal kaamilu alquran te te bu dee faculté intellectuelle rek la tabarkalla tabarkalla ñi ko mag ñoo ñu ngi fi xam ko fuuf mais loola ndimbalu yàlla la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidoon li nga tële la la yàllay defal moo tax xale bi soo koy jàngal tawxiid di ko jàngal tasawuf mu raw la ci mu raw la mu raw la ndax yow tilim tilim tilim yi la dal sax ba léeg-léeg sa xel mi réeral la xel mu rëy mi moo lay réeral sànq la moom yeggagul foofu ah alalu yàlla la alalu yàlla la tabaarakallah ah waaw ah 88 628 10 95 88 628 10 95 bismillah man la man Alaaji Diop ok Alaaji Diop aha ñun daal mu ne li ma maanaam am ci yow daal moom mën ma ko am ci ñu bëree bëree bëri waaw loolu day yàlla koy dogal ndeysaan yàlla koy dogal man nag xam nga dam man tam doomu daara laa mhm. wante moom li ngay wax ci Alaaji Malick si mhm, radiyallahu ma macha allah tabaarakallah dañ lay ñaanal yàlla may lay amin amin yàlla boole ñu ko defal amin yàlla boole ñu ko defal allahumma amin amin yàlla boole tabaarakallah Diop yàlla xam na ne léegi-léegi dama lay déglu sax jooy billahi ah loolu amrullah loolu moom mbiru yàlla sunu borom la moo xol bi day sedd ba dem ba hmm. te ni ma koy déggee rek macha allah daal daal mën naa ko loolu nit du ko def yàllaa koy def waaw yàlla moo koy def xam coobare sunu borom la waaw léegi sax bu ma see ci émission rawee. Mhm. bu ma amee temps damay dem ci. ci YouTube bi wallaahi ndeysaan ko ba mu mhm. ma ma a mën a. Mhm. tranquille macha allah. tabaarakallah. tabaarakallah yal na yàlla def jàmm. allahumma amiin yal na yàlla yokkal xam-xam bi. amiin amiin ah, amiin baax na ci barke Alaaji Maalik. radiyallahu anhu amiin yaa rabbal aalamiin. faram-fàcce ay mbiram. amiin yaa rabbal amiin wallaay dëgg la wallaay tabaaraka alaaji Jóob dëgg nañu lool tabaarakallah boo wootee tee rek da ngay bàyyi message boo bindee message wax sa tur rek dinaa xam numéro bi ko defee ma rappelé jërëjëf waay tabaarakallah jazaakumullahu anna xayran yan na yàlla wuutuñu fay leen cofeel sëñ Cheikh nee na alalu yàlla la alalu yàlla la tabaarakallah ahsanul xaaliqiin technicien baa ngi bëgg sàcc samay minute dese nyari ñaari iya, minute li de mooy yang si si di ma tëkk xaw ma nag lu ngeen ci xam yéen auditeurs yi daam maa ngi lay nuyu di la ziara caméraman tabarakallah jazakumullahu xayran ah comme da ngaa bëgg jël sama ñaari minute ma may ah, tabarakallahu mbokk yi yegsi nañu ci fi sunu minute yi jeexe seen mbokkum daara alxaaji abdulaziz fall mo ci ji yal yàlla defal mucc ak mucc la wér ak wér dund ak dundule ñaan yeeg encouragement yeeg tabaarakallaahu yal na yàlla def leer def ko barke yàlla boole ñu ko ñun ñëpp tabaarakallaahu delluwaat ndokkeel alxaaji Cerno Hamidou ak fraternité musulmane ci seen bëccëg bi weesu bëccëg yi sax laay wax di ñaan yàlla yal nañ ko yàgg def ba tabaarakallaahu am 114 ans ndax njariñu xeetu yi la njariñu réew mi la njariñu jullit ñi la tabarakallah yenn yàlla wutu ñu fay leen ibadak wa اللهم ارحم عبادك وبلادك وصلى الله على الرسول وعلى آل الرسول والسلام wa rahmatullahi taala wa وبركاته